yooyu bokkul xam entreprise bu defee bénéfice dafa war a fay impôt. maintenant entreprise boo xam dafa collecté de la aussi moomu ko da war a reverser maintenant problème mu média yi ban problème la ñu am. il faut dañu war a reverser encore l'État parce que c'est les ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko dagg maintenant fekkee dafa ne l'impôt maintenant sur le loolu c'est autre chose loolu est-ce que ñoom dañu def bénéfice wala defuñu bénéfice wala dañ leen ñëw redressé wu. non loolu est-ce que bu deful bénéfice déjà dinañ ko laaj impôt. c'est ça la mais entreprise ñoom ñëpp ñooy am na am ñoom ñëpp ay naan euh, on arrive à peine à payer euh, nos nos nos employés et tout. ñu wax ne dañoo am ay problème mais boo ci gis kenn ku ci déclaré faillite. alors pourquoi est-ce que ñëw waruñu jàngal xale yi dès dès les éco dès euh, l'école primaire mm-hmm. que fay impôt. dafa nekk devant civique comme booy romb gis ñu yéegal sa drapeau nga taxaw ñu war a xam ne nekk loo xamante ne dafa mel ni da nga ko dalay neex nga def ko nga bañ mu neex la mu naqari la nga bañ koo def xam nga la question il faut pas nga trancher ko mhm. xam nga une entreprise dafa nekk loo xam ne dafa difficile dafa am na entreprise yoo dañuy vivre dans des situations difficiles entreprise bu dugg buy situation bi c'est l'État qui doit venir en aide de l'entreprise parce que xam nga entreprise dafay def lu lu bëri lay def ci société bi parce que entreprise amul y pas de travail s'il y a de travail y a pas de salaire s'il a pas de euh, marche pas. Mm-hmm. donc tout est donc problème bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko bâclé entreprise de projet bu ñu amee problème dañu war xam yan problème la am. Sénégal yi xam ko.

yóbbaale ñoom est-ce que ñun dinañ ci retrouver suñu bopp est mais y a un problème y a un problème aussi ci mm-hmm. ko de fond en comble lan moo nekk ci mbir mi mm-hmm. euh, impôt comme ni nga ko waxee devoir civique la boo xam ne nit ki da ko war a def parce que impôt du question de moom rek moom la réew mi di yore pour ci dox mm-hmm. mais c'est comme taxe yi ñuy def ci taxe douanière yeeg yooyu ñoom yooyu nga xam ne booy dugal marchandise ci dëkk bi faaw nga fay c'est la même chose ak impôt yi impôt yoo xam ne c'est impôt le revenu la boo xam ne euh, bu nit ki defee ay bénéfices autant pour moi ci bénéfice yeeg yooyu noonu da koy dañ ciy téq loo xam ne moom da koy yóbbu ci keesu état bi. Mhm. mais loolu yëpp aussi yan entreprise la concerné. Mhm. foofu nag day nekkaat beneen problème mooy du nekk yat yatu xeexukaay boo xam ne da nga koy utiliser. pour dóor benn yat bi xadisi la Abdou Thiam nga ne ko yow mhm. garaawul parce que day yoo xam ne aussi. faaw ñu mettre lépp à nu ndax entreprise de presse yëpp ñooy fay wala dafa am de presse yoo xam ne euh, xëy na ndax ñaara yëgloo delloo gun. est-ce mais Issa na nga mën a comprendre entreprise de boo xam ne mun na toog plus de dix ans musul fay impôt. du yoon du yoon. est-ce que loolu war toog fi di naan état na teggi loxoom parce que dafa saf ak dafa nii man je pense que la question pertinente ñu war a poser nan la entreprise buy fay ay salaires yu faramineux. ba pare toog ay at fayul impôt am na ñoo fay entreprise dafa war a fay impôt bi daal il faut mu am sincérité seulement hmm. bañ ko politiser quoi exactement ñu bañ a politiser waxante dëgg le fait que politique bi di ci dugg mooy kii di fay kii du fay comme comme nguur yi ñu weesu woon ah, da ngay xëy xëy gis ñu ñu ne la Walfadjri par exemple moo nekk au devant de la scène ñu ngi koy réclamer temps yeneen entreprise yi des doo dégg ñu réclamer leen hmm. xëy na ñi ngi fay je sais ne xëy na ñi ngi doon fay normal mais dara du ci leer yow ci sa bopp que ni ndax fayoon nañ wala fayuñu bii aussi c'est ça peut être la même chose est-ce que ñeneen ñi ñu ngi leen di laaj est-ce que jaar nañu ci yoon ak yoonoon wala xëy rek bon ñaara jégloogun xëy na sax ñëpp lañ daajandoo on sait loolu moo tax euh, euh, ñu war a applaudir li nga xam ne teg nga ci table parce que débat bu mel nii ma mm. dégg ma je dafa nekk loo xamante ne mm. Mm. vraiment c'est à toogee ko c'est pas la maanaam je veux dire comme débat ouverte la mais de manière tout le temps bu doon dégg ñu naan dañ ma euh, dañoo def redressement fiscal Sall nangam nangam mais après doo ko dirom suite mais comme ni ñu ko tegee nii sénégalais di ci jox seen opinion ñu koy waxtaanee nii c'est une hmm. bu nekk loo xam ne du nekk pour pour pour pour neexal kii wala pour kii voilà yooyu aussi je pense que ni ñoom sóoraale nañ ko ñoom ñi ko teg parce que xam naa que ni quelques jours dinañu xool ba xam dinañ leeral ñoom ñi nga xam ne ñoom la concerné déjà je pense que daal lépp waxtaan la même bu fekkee système bu ñuy fayee mais il faut que fay de l'État ci entreprise bu taxaw tëj quel est l'intérêt de l'État dans ça il n'y c'est des Sénégalais qui travaillent là-bas te ñuy liggéey ku nekk da ngay créer de la valeur ajoutée donc boo créer de la valeur day dugg ci état bi donc l'État doit être là pour en tout cas accompagner les pour mmh. les permettre de pouvoir satisfaire et de pouvoir payer leurs impôts état bi moo war a taxaw ànd ak ñoom ci loolu parce que entreprise bu la fayul peut ay compte am xaalis chaque fois nga ne doo fay day

te ñun ñëpp ñoo ciy bénéficier wu parce que ñëpp wala ñuy fay les enseignants les les médecins bon alors ñu dugg ci waxtaan bi Issa di fàttali ni monsieur Abdou Thiam secrétaire général fédération départementale bu parti démocratique sénégalais bu Linguère lañ fi invité tey ñoo waxtaan ci euh, les problèmes que traverse ce parti le parti de de maître Abdoulaye Wade ki xamante ne moom <laughs> euh, il a fêté ses 98 ans récemment alors qu'est-ce qui se passe au parti démocratique sénégalais ba madame Waressa nga xam ne bokk na ci les figures emblématiques de ce parti démissionnaire waaw euh, xale mu ngi bu baax di wax ne en fait li xew PDS moo di ne dañuy traverser une crise bu métti te crise bi nag la ko waral moo di ne dañu bokk depuis 2012 PDS dafa nekk dans l' opposition am un candidat en 2019 gis ngeen li ci xew mënu candidat bi ñëwul ñu ñëwaat defaat ko suñu candidat en 2024 candidat bi ñu euh, candidature bi ñu annulé ko bon ba nga ko annulé gis ngeen li ci xew dem nañ def proposition de loi à l' assemblée Macky Sall ak Karim Wade def nañ lépp reporter les élections bu ñu ci jógee def nañu un recours en référé au niveau la cour suprême mais ba ñu débuté on s' est rendu compte que kon ay la yéwén donc élection dina am donc loolu moo moo moo vraiment moo moo moo bett nit ñi moo bett euh, en tout cas militant yi moo bett responsable moo métti responsable yi nga am un parti démocratique sénégalais un parti bu toll ni parti démocratique sénégalais nga dem depuis 2012 ba léegi mu am deux élections yi fi jaar te amoo candidat mu nekk un boo xam ni Euh, parti bi difficilement la ci mën a tenir <coughs> avant les élections aussi la parti dafa divisé parce que bu ngeen ko fàttaliku avant les élections une partie du PDS man ñoo xam ci laa bokkoon ñun on avait dit à Karim Wade que le parti aujourd'hui amuñu candidat le parti doit se réunir les instants du parti doit se réunir nañ daje waxtaan xool parti bi tey comme amuñu candidat kan la ñuy jàppale de manière ñu dem def ko. bañ d'accord ci moom d'accord ci commencé informer les fédérations à un moment donné ñu ko parce ñu ko contre Karim Wade parce que dañ jàpp aujourd'hui Karim moom lañ defoon candidat non seulement ñëwul waaye liñ tax sax ñu rejeté ko jàpp il a une part de responsabilité même si c'est minime il a une part de responsabilité ba mu ba ñu rejeté candidat waxoon dinaa ñëw def le combat avec yéen pour ñu toxal élection ñëwul donc jàpp bu ñëwoon kon dañuy def son procès donc finalement la réunion mënul am réunion bu amul nag ñun noonu ba mu demee noonu nag ñu am ñu jàppale Amadou Ba am ñu jàppale Diomaye. Mm-hmm. élection yi jàll élection yi jàllee nag ñin position bi ñu amoon mu gën a yokk d' autres responsables ñëw ne vraiment Karim Wade mënatul continuer diriger parti bi à part de Dubaï il faut que ñu réformer changer doxalin parti bi. Mm-hmm. képp koo xam ne wax nga ko wala yëkkati nga kàddu boobu rek. gars yi envoyé ay ay délégué ay superviseur ay commissaire sa fédération fexe la foofu te vous savez ñun fédération bi comme man au niveau département Linguère c' est le département ñoo ma fal Ablaye Wade falu ma Karim Wade falu ma mënu ma faa dindi. Mhm. même bu ñu defee note ne dindi nañu ma fa parce que ça la fédération dafa dafa nekk structure boo xam ne donc c' au niveau de la base. donc ñu commencé dindi ñu bëri responsable yu bëri bu ngeen xoolee ci internet beaucoup de responsables dindi leen ci seen euh, euh, secrétaire général de fédération ñu continuer ba agsi ci Woré Sarr parce que Woré Sarr rappelez-vous en décembre dañuy changé. Euh, le bureau de la fédération des femmes. Mhm. parce des femmes dafa am deux choses au euh, niveau du PDS dafa am ñaari chose dafa am secrétaire général secrétaire national boo xam ne Abdoulaye moo koy fal man si secrétaire national chargé de l' agriculture et alimentaire. Mhm. boo xoolee nga ma invité fii. sama titre mais dama ko ko dama xam naa lu tax dama xam bu ma ko waxee tey suba ñu dindi ko. ici vice président de la commission communication mais yooyu ñoom dañu def note génne ko te dañ am droit. mais en tant que secrétaire général de la fédération. ñoom ñoom ñoom mooy c'est Karim Wade mooy bind signé signature dañ gis nga dañ ko imité. signature Wade lañ Ablaye la ñu non Ablaye Wade ñun en ba fi crise bi amee Omar Sarr fi la ñu fekk ñun Ablaye Wade dañ doon réunir ak moom pendant euh, chaque mardi wala chaque mercredi dañuy réunir ak moom un comité de dix onze personnes waxtaan ci parti bi ku nekk wax sa xalaat dem mais depuis

responsable présidente des femmes au niveau ñun ñu d' accord ñun ñëpp ne war a sax parce que Karim ni mu bëggee defee ni d' accord ñu ci ne war a toxal ko bañ ko toxalee nag ñu xam ne comme élection présidentielle jub na nañ leen xaar ba léegi barki dem ñu génnee benn note pour euh, indi ah. euh, Fatou Sow man je pense que ñoom ñëpp am nañ mérite pour diriger la fédération mais c' est la démarche boo xam ne d' accord ñu ci et que fekkee da ngay bëgg amener du 109 d' nga ñëw ne comme part mën nga na Sénégal tey Diomaye moo fi nekk président Diomaye moo fi nekk da nga wax ne président Ousmane Sonko moo fi nekk on a une nouvelle génération donc il faut de nouveaux visages hmm. on est d'accord sur ça mais bu indi nouveau visage doo indi ñu mag da indi ñoo xam ne ay jeunes bu ñu doon indi jigéen ñoo xam ne am na 40 ans 45 ans wala 35 ans ñun dañuy applaudir mais boo indee la même génération dañu jàpp ne li ñu def c'est pour farfarloo te loolu kenn d'accord ci donc le PDS euh, ñoo xam ni tey euh, boo leen xoolee kenn d'accord ci li PDS di doxee donc loolu lépp dañu jàpp ne Karim Wade la donc euh, au-delà de Woré Sarr ñu jàpp mooy Karim Wade moo mënutul diriger le PDS Parti démocratique sénégalais ñun foofu la ñu taxaw tey jàpp nañ ne Karim bu bëggee diriger Parti démocratique sénégalais ànd ak militants yi liggéey ak militants yi pour accéder au pouvoir mais mënutoo toog fële li xale di wax léegi dox toog mu dox. toog muy dox jeex jeex na mais tëdd muy dox moom it dafa dafa a jeex donc Karim Wade mënutul toog tëdd fële xam dafa ñuul. daan woon leen jokkoo moom par exemple. mais dañ ngay jokkoo mais jokkoo boobu sax wàññeeku na léegi avant les élections ba léegi kenn ñu bëri déggatuñ ko si lu mu nekk kenn xamu ko. avant les élections kenn jotutu ko nga wax. man de jotutuma ko parce que daan nga ko jot déjà. ah man kenn man daan naa ko jot daan naa ko jot danaa ko envoyé message da nga koy envoyé message mu jot ko mu répondre ainsi de suite mais avant depuis euh, janvier ba léegi man personnellement man laa wax sama bopp la xaw ma keneen. mooy janvier 2024 2024. problème mu nationalité beeg yooyu noonu. non affaire bañ ko bañ ko bañ ko. bañ ko rejeté